de Marseille Alphée, CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal déodorant Malaysia Umo à Makura domicile Nous ne ni may Yenikai. ci yéenikaay yi yéenikaay yi ñu Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf li ñu doon lam-lamee l'observateur nee nañu sikki sàkk amatu ci waa parti socialiste yi ne woon bu ñuy dem ci local yi ñoo waa Benno Bokk Yaakaar lay doon journal wax jarandu na Aminata ak i mbokkam déposé nañu seenub caution seen bopp ci local yi keroog altine ci la ba ca caisse dépôt et consignation te nee nañu moo di Mame Bounama Sall mi trésorier général bu parti bi moo fi neewul woon journal bi nañu léegi nag mbir leer na way daanu na socialiste ñu dem ci local yi déwéen yi duñ ci ànd waa Benno Bokk Yaakaar Benno Benno Bokk Yaakaar seen njiit di Macky Sall Sud Quotidien nee nañu baatare na ay kartam defi investiture am samp ay candidat am li ñu dégmati moo di candidat Benno Bokk Yaakaar ca mairie bu Ndakaaru Abdoulaye Diouf Sarr la war a doon Ndar Mansour Faye Kaffrine Abdoulaye Seydou Sow Médina Seydou Gueye Abdoulaye Bibi Baldé ca mairie bu Kolda professeur Moussa Baldé ca conseil départemental bu Kolda journal Les Échos feelu Sud Quotidien ba bind ne Macky Sall teg na ay soam te coow jibul tiig a tojul waaye Diawo jiital Moussa Balde ak Abdoulaye Bibi Balde ca Parcelles Assainies kii di Amadou Ba la ñu fas investir ci commune ba ak ci ville ba la sine kaay nañu sagara ngay xeeñ ci Ziguinchor ndax Benoît Sambou ak Seydou Sané yi fa Macky Sall jiital farandoy Doudou Kay nee nañu duñu ko dégg lëkkut jenañoo njawit mi ngi desande xambin ba léegi ci kan mooy doon candidat Benno Bokk Yaakaar ci mairie bu Ndakaaru ndax ba léegi leeragul ci ndax Abdoulaye Diouf Sarr lay am ndax Amadou Ba lay doon ca Kaolack moom le quotidien nee nañu ki ñu mooy doon candidat Benno Bokk Yaakaar ca mairie moo di Mohamed Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo ñoom ñaari adversaire lañu yu wër Macky Sall yoo xam ne seeni mbir du neex a lijjanti ñaari lieutenant yu Macky Sall lañu di ay punkal yu ñu ràññee ci parti APR te duñu jaaroptaal coalition beneen bu toll ci lijjanti boppam suur soi nee nañu moo di waa yeewi askan wi ne ñoom it ñoo ngi ciy gisee ay daje ki waxtaan yu dul jeex ngir lijjanti seeni investiture yi ba léegi nag dossier bu Tamba bu Fatick bu Kaolack bu Kees ak bu Ndar waaye yeewi yeewee ko guñ ci maanaam ba léegi réglé guñu ko déggoo nañu nag ci ne kii di Ousmane Sonko du doon candidat ca mairie bu Ziguinchor ni ca conseil départemental ba nitam lay investir baa boog mu investir Abdoulaye Baldé su ma déggee waxi four closion damay réer kàdduy soxam war xamante ni la ci xët mu njëkku la Sénégal commune bu war xoox journal Source A ne nañu tànn nañu seenub candidat ubbil yéenekaay bi honorable député Yoro Sow mi maire bu war xoox la gaañi ne duñu ko bàyyi duñu tàggoo ak moom dañuy dem ak moom ba xoox ca war xoox yéenekaay bi nañu lu toll ci juróom-ñaar fukki chef de village ay association ay groupement féminin ndawi dëkk ba ak waa Benno Bokk Yaakaar yi ca commune ba mu di waa APR di waa parti socialiste di waa ba ci waa LDR yeesal ñoom ñëpp ànd déggoo ci tànn Yoro Sow investir ko ngir joxaat ko beneen mandat ca mairie ba lan la góor gi di Abdoulaye Wade làq ne candidat ca mairie bu Ndakaaru laaj la bu journal Vox Populi xëy samp ci xëtamu njëkk ba di ñu xibaar ne ci lu yàggatul dara Abdoulaye Wade dina ñibbisi si Ndakaaru ngir doxal campagne bu waawal yéenekaay bi nañu li ko leer moo di tànneefu candidat bi ci mairie bu Ndakaaru nar naa jur ci géew politique bi ay rëg-rëg yu dul jeex mbër mi di rëg-rëg moom la sunu làmbu xëye waa ji dóoroon bombardier mu daanu ci MMA ba di Pudzianowski rëg-rëg nee na moom la soxla bu ñu ko joxee contrat bi day gëmm siñu ko te bu jàppee waa ji da koy coob ci trois minutes la koy defal bagage assurance. de Marseille Alphée, CCPS, comptoir commercial de